Mali tawfex rek ngeen di dégg ci lépp lu jëm ci seen wàllu wér gu yaram ndax suñu produit tawfex yi nga xamante ni ay produit bio naturel la yoo xam ne ci gàncax yi nekk suñu réew la ñu ko defaree waa Tawfekh ci lan tawfex ci wàllu néegu sëy tawfex ci wàllu mbixum siti ba ci tawfex ci wàllu hémorroïde tawfexu sëy bi mooy produit boo xamante ni moo soxal képp ko am jafe-jafe ci néegu sëy néew kattan jeex na tàkk boo ko jëlee fi nga toog 10 minutes avant rek da ngay dégg jàmm soxna si contact

def lépp am nañu produit boo xamante ni moo leen soxal bu seen yaram di diis du ngeen mën dara yaram bi diis gann ngeen di tayel ba jàpp ni sax dañu leen liggéey fekk na yaram bu diis tong la jàpp leen ne suñu produit yii bu ngeen ko jëlee di nga oyof tong gaaw leen gaaw jokkoo ak ñun nag ci 77 593 19 11 wala 77 245 36 39 kon nag Seydina Omar Kayre ngoog borom produit yu baax yi Seydina Omar Kayre mi ñu andil tawfeex ma ni tawfeexu mbir gu say bi bii gaaw leen wuti ko te xam ne sonal na lu bari waaye tawfeex rek ngeen ciy dégg ak Seydina Omar Kayre borom tawfeex nit ñi dara ñu faral di def euh, li nga xamante ne mooy ziar asura bi nga xamante ne rawatina tamit euh, ñu ngi koy waajal fii ci euh, kër Cheikh Sidi Hadji Malick si si ëttu kër Cheikh Sidi Aboubacar si ndax mën nga ñu indi ay leeral ci ziar boobu nga xamante ne fas nañ ko amal. ziar bi. gàmmo lañ daan def bam mu yàgg ñu mujj ko def ziyaar ziyaaru tamxarit ziyaar bi macha allah bu jotee fu daayira bi nekk membre nekk fa am nga danga ngaa war a ñëw waaw da ngaa war a ñëw fekkee si ko parce que ziyaar bi sëñ Abdou ku doy waar la sëñ moo ko daan présider di ko taxawu rek. di ko taxaw boobu mu ngi liggéey loo xam ne kenn xamu ko. pour bu fi jógee lii na continue mu jógee fi loolu continue doomam Serigne Moustapha bu fekkoonte ne taxawul du sotti. waaye taxawaayam moo tax affaire bi continue waaw taxawaayam. njàmbaaram. taxawaayam itteem loolu lépp moo tax mu continue ndax bu jublu see dootu am jàmm. moom bu ziar bi jublu see am jàmm. mu ngi fii mu nga fële mu nga fële fu ne lay dem. pour siyaar bi baax pour mu am ndam rek moo tax fu ne lay dem euh, wuti ndam euh, indi indi ñu waaw muy muy sagu xadara bi yëpp di sagu kër gi yëpp di sagu sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu ndax sëñ ab daf ñu waxoon ne yéen ñii kat yéen ay yaakaari kër gi loolu la waxoon de muxta fii ne yéen yaakaari kër gi ndax yéen lañu fi gis loolaa nekk ñu ñu di ko dundal bu jotee ñu dundal ko dajale coordination yi yëpp section yi yëpp ñu ñëw suñ ñëwee euh, euh, sëñ Moussa teeru leen bañ ñëw ci tànt bi sëñ Abdou génn waxtaanal leen ba ñu kontaan ñu tasaaro ba beneen beneen atati ba beneen atati su beneen atati rek ñuy def noonu noonu nag moo fi nekk dara changé wu ci looloo fi dara changé wu bu ziar bi daal na ko ñëpp préparé na ko ñëpp waaj kenn ku ne na ko waaj waajtaay boo xam ne doo ko waajee dara ñu teel a ñëw teel a def li ñu sant parce que itam taali bi day def lañ ko sant bàyyi lañ ko tere waaw day def lañ ko sant bàyyi lañ ko tere la sant defal loola lañ leen ni moytu ko moytu ko defee mooy mooy ngëneelu taali bi waaw moo tax Euh, ñu góorgóorlu ci rek euh, fas ci yéene rey suñu bopp xar suñu tànk tubay ba ziar bi yoon waaw bu ko defee nag ne ñëpp ñëw rek euh, ko kenn ku nekk am nga ci wàll <coughs> surtout daayira bi nag daayira moom bu kenn des daayira muxtafiina bi athaaril abaay wal ajdaad bu kenn des na ñëpp ñëw daayira bi bu kenn des na ñëpp ñëw waaw na ñëpp ñëw ci gannaaw seen président bu ko defee ñu def ziar bi bu ziar bi jeexee ñu dem ñibbi ba beneen yoon incha allahu taala yàlla nañ koy fekke at yu bëri yàlla nañ koy fekk at yu bëri yàlla nañ koy fekke at yu bëri te tal ko te man ko man koo taawu incha allahu taala euh, macha allah amati nañ mbégte ba baax ak contentement ci leeral bi nga xamante ne def nga ko ci euh, ziar asura waaye xam naa rek euh, dañuy taxaw ci benn point muy dairatul muxtafina bëgg nañ tey nga wax ñu ay leeral parce que bëgg nañ nit ñi nga xamante ne ñooy seetaan ñu xam fan la daayiratul muxtafina soso ak lan moo ko fondement ak lan moo tax ba mu yegg si ba fii tey wax dëgg yàlla euh, te te itam ku ne Achoura rek xel yëpp euh, dafay daal di dem ci li nga xamante ne mooy na waaw xam nga Achoura moom muxtafina muxtafina mhm. euh, mbooloo la moo xam ne sëñ Abdou ñu ko maye fii fii cettu daara bi mm-hmm. la ñu ko may ñu génne fëtë yi sëñ Moustapha bu daayiratu Moustapha diine génne ko parce que boobu moom mu ngi dëkk fii mm-hmm. boobu mu ngi dëkk fii moom Bassirou Cissé mm-hmm. ñu génne fëtë yam tegal ko sëñ Abdou man maa jëli sëñ Abdou ca këram ay nu maa di laa ko jëli ma jëli ko indi ko mu ne ma waaye demal kii maa ngi ñëw ma ne ko waa acci nañ dem rek mm-hmm. mu mu jiitu ma topp ci kawam mm-hmm. wala ma jiitu mu topp sama kaw mm-hmm. ba ñëw ba fii mu wàcc ñëw ci ëtt daal bi Oustaz Diéne ngi toog Diouf a ngi toog Maam Malick Ndiaye ngi toog ñëpp a ngi toog ab du toog ba mu yàgg mu ne xanaa boo ma may leen daairatul muxtafiina bi athaaril abai wal ashdad ashdad boobu mu wax nag lañ xamul daa dañoo xamul siin la wala da ñu defar carte yi boolewuñ ci ashdad bi ca déwén sa ba mu ñu waxee ne aj daat jiim la te lañ ko boole ci lañ boole carte yi man maa ngi ci ñaari carte yëpp bi bi nga xam ne aj daat lañ ak bi nga xam ne def lañ ci aj daat ak ak bon sëñ Abdou may ñu ko ni ñu ah gone nag tëb tëbinu bàyyam muy rëq ndiggam gone tëb tëbinu bàyyam muy rëq ndiggam na ngeen def ndànk ndànk rek ba yegg fa ngeen jëm ngeen góorgóorlu keroog loolu la ñu sëñ Abdou wax ñu commencé def ndànk-ndànk def ndànk-ndànk xaru tabaski benn xar lañ njëkk a joxe benn xar lañ njëkk a yóbbul benn gros suukar lañ njëkk a yóbbu waaw tey ñu ngi ci ay ton xar yi xar ñu ngi ci ay ay ay ay ay quarante ay cinquante soixante soixante-dix ci benn xar rek la ba ñu yóbboo xar mi ba yeew ko ci biir ci roq bi fii eh, marab bu mu wàccee di seet xar suñu xar mi la njëkkee mbay doon de jiitu ne ko kaay xool xaru xaru waa muxtafin yi waaw te kat menn xar dongul mu naan ko xari waa muxtafin mara bu ñëw euh, xool suñu xar mi raay ko ne incha allahu yàlla na doon gétt yàlla na doon gétt incha allah ne gétt na gétt la ñuy indi mm-hmm. ak gétt la ñuy yow indi ko donc loolu loolu lépp ci xaay ci daayira bi la mm-hmm. euh, ba tax na li sëñ Moussa wax rek moom daal nañu góorgóorlu rek dañu góorgóorlu rek doxal li ñu sëñ Abdou wax dee leen doxal doxal leen rek te ngeen def ndànk doxal leen def ndànk te ngeen def ko daara nag daa daayira bi def leen ko daara bi ci des fépp fu ngeen dajale nangam nar ko indi fii am ko loru ci daa eh, ci ci ci ci yéen jël leen ko jox ko njaboot kooku bu leen ko indi waaw social la ku loru foofa te ngeen war ko dimbale jël leen xar ma jox ko bu leen ko indi fi bu kenn kenn indi ci xadara bi loolu fii lañu koo ko waxee ci tante bi donc loolu lépp ay ndimbal la ay ay social la ay ay ay ay ay activité la yoo xam ne buñ ko buñ ko toppee danañ dem waaw moo tax itam rek alhamdulilahi rabbil alamin loolu daal mooy daayira bi rek. macha allah euh, amati nañu waat mbégte bu baax a baax xam naa rek euh, dañu lay laajal beneen question bi tamit ci biir daayiratul muxtafina la. Euh, daayatu muxtafina ndax mën nañ xam liggéeyam euh, ci xadara euh, maam Cheikh Sidi Hadji Malick rawatina tamit ci ndaw ñi nga xamante ne ñoo bokk ci ñoom gis nañ ni dañ leen di jàngal li nga xamante ne mooy seen i métier ak yeneen ak yeneen ndax mën ngañ ci indi ay leeral bu baax a baax dañ leen di jàngal lépp ndax daayira bi métier lépp a ngi ci ndax liggéey bi ñuy liggéey suukaru koor ay tonnes la ñuy joxe xar ay ay ay ay lañu la ñu indi loolu ndimbal la te liggéey la ci ci xàddara bi ndax suñu xar yi bu ñëwee fekk si fi xaru kër gi buñ ko séddalee mu baax suñu suukar bu ñëwee fekk fi suukaru kër gi buñ ko séddalee mu baax suukar si dañuy joxe joxe séddale kër gi yëpp ñëpp lañuy sedd waaw kon kay seen liggéey ci xàddara bi baax na sëñ Abdou dafa waxoon ne seen daayira bi la ñu ci yéen ñii lañu ñu compté yéen def suñu yaakaar moo tax itam yaakaar ji dëgër na ñu koy def di ko def ba ba bés yàlla tey bi waaw di ko def ba bés yàlla tey bi suukaru koor ak tabaskeek lépp ñu koy joxe lépp ñu koy joxe duñ ci bàyyi dara lu ci jot rek ñu def ko ba jot ñu def ko waaw ba tey daayira bi ñu gërëm leen ndax itam loolu itam njàmbaar la te ay xale rek a ci ne ay xale rek a ci ne waaye teewul dañuy def yëfu mag di njàmbaar di joxe li ñu am ak lu ñu amul sax dañ koy def waaw njiit di nekk di def ay sacrifice ku nekk di sonn pour pour li ñuy dox baax loolu rek loolu doy na doy na lu ne waaye doy na lu ne euh, amatiwaat nañ mbégte bu baax a baax euh, xam naa rek euh, beneen question bi ci topp mooy jëf joo xamante ne jëf ju rafet la beneen question bi nga xamante ne moom la ñuy ñëw Euh, muy euh, ziar général bi nga euh, ziar asura bi nga xamante ne ñu ngi koy def ana tey lan ngay wax ndaw ñi ci comportement bi nga xamante ne war nañu ko def bu ñu ñëwee dëkk bu mel ni Tivaouane rawatina tamit ñi fiy ziar si ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ñi fi ziar ñoo xamante ne ay sang lañ. muxta fi ne li ma leen di wax rek mooy na ñu mel ni ñu sëñ Abdou waxoon hmm. dañoo def conférence ca Dakar. Hmm. def ko ICAT 2. Hmm. dalal sëñ Abdou ci benn néeg. ni kee néeg bi conférence bi sësoo biñ pare sëñ ab defe na dañ ko yóbbu fu ne ñu pare génne ko mu dugg mu xool mbooloo mbooloo maa ngi yaru mbooloo maa ngi dal bañ ñëwee di ndokkeelu sëñ Abdou ànd ak man mu Moustapha ak gars yi ñu dem ndokkeelu sëñ Abdou bañ ko demee daf ne man de li may li may yéem sax ci yéen mooy yar bi rek yar bi yar bi daal ndax man defoon naa da ma yóbbu feneen ni que man maa ngi maa ngi sësaloo euh, mbooloo mi loolu doy na sëkk yar boobu nañ ko yore nañ ko def muy suñu ngànnaay fu ñu jëm nañ yaru rawatina Tiwaawoon Tiwaawoon moom orma ormal Tiwaawoon ormal ñi fi tëdd dana tax am orma suñu ormal yi Tiwaawoon ormal ñi fi tëdd ànd ak yar ak teggin euh, sol yeri jot jigéen ñu sol lu fatt góor ñu sol lu baax ñu àndandoo ñëw kenn ku ne mel na nga war a mel waaye sol yére mu yaraax jigéen loolu doxul waaw loolu doxul dañuy sol jigéen jigéen nañ sol yére yu jot yu yaatu yoo xam ne dana baax ci ñoom góor ñi tam sol ay bolok ku mën a sol bolok nga sol ko mën a sol grand bu nga sol waaye nañ sol lu baax rek waaw buñ mënee def nag lu weex comme nañ ko daan defee mm-hmm. ñu weexal rek nañ ko weexal tàll rek nañ mm-hmm. weexal tàll rek soo mm-hmm. defee loolu daal buñ ko defee na baax nañ euh, wasala man xad wasala bil xurmati Cheikh Hadji Malick nee na ku la raw mu la rawee ci or ku la raw rek mu la rawee ci ku fi ëpp yar yaa raw sa morom ku fi gën a yare di ku ñëpp a la raw yare di ku amul benn njëriñ yar rek kaam njëriñ waaw yarul rek moo am njëriñ yare di ko amul benn njëriñ yaru rekk am njëriñ nañu bokk yaru bokk yaru bokk yaru bu ñu yaroo danañ yegg fañ jëm bu ñu yarul duñ yegg fenn fenn duñ fa dem Maodo ko wax Maodo ko wax te Maodo lu wax dëgg la waaw Maodo lu wax dëgg la këram gii daal gis nga nee na bu ma yàlla doon jox kër euh, bu ma yàlla tàggoon dama ko naan gaaye ga ma dëkk hmm. waaye yàlla nga ma jox fii Tiwaawoon kër fii la ma dëël hmm. kon nag damay liggéey kër gi santul si hmm. yàlla la sant ku yàlla ñor ci nga bokk hmm. kër gi santul si yàlla yàlla la sant ku yàlla ñor ci nga bokk waaw kon na yàlla ñor ñëpp kenn ku ne na yàlla ñor rek nga bokk ci waaw njabootu Maodo mooy képp koo xam ne yàlla ñoor na la rek ci njabootu Maodo nga bokk waaw njabootu Maodo nga bokk waaw ñu fa mu bàyyi ko xel Euh, macha allah kontaan nañ bu baax a baax amaat mbékki ci question boobu nga xamante ne répond na ko ko waaye tamit euh, ñi ngi waajal asura yàlla nañu yàlla may fekke ak tal euh, ku ne xam na ni Cheikh Ibrahima Badiane gëj na ñëw ci ziar bi xawoon na wéré di rek moo ko ko taxoon na bañ a ñëw waaye tamit ndax ren ñi ngi xaar teewaayu oustaz Ibrahima Badiane ci biir li nga xamante ne mooy ziar bi. Ah, xam nga su ma tànnee rek incha allahu taala xam nga feebar moom. noonu borom la da feebar bala nga manoon doo ko man la nga taloon doo ko tal boo wéree nag man la nga manoon tal la nga taloon def la nga daan def waaw def la nga daan def su ko defee incha allah bu ñu yàlla may wér may ñu tal ñu def lañ daan def rek lañ daan def ñu yàlla may wér may ñu tal bu ñu ko mayee incha allah ñu ànd ko nit ñi mm-hmm. def ko nañ ko daan defee ci kàttanu yàlla mm-hmm. parce que daayira bi ci lañ bokk waaw ci lañu bokk mm-hmm. te daayira bi nag cosaan lañ ci cosaan lañ ci nag wax dëgg yàlla cosaan lañ ci nag dëgg dëgg dëgg bu dëgg dëgg cosaan lañ ci sëñ Abdou dafa mas a wax Moustapha euh, dañu am daje ci kaw taax mi man moom ak sëñ bi mu wax ñu lim ñuy wax ba pare ñu ko waxee ba ñu jóg di dem mu ngi jóg jëm ci wanag bi mu ni Moustapha Moustapha ne ko labbayk ah, mu ne ko ba xam ngeen ni Ibrahima seenum tuur la Moustapha ko waaw hmm. mu ne ko Moustapha yow laa wax mu ne ko labbayka mu ne ko dama ne ndax xam ngeen ni Ibrahima seenum tuur la mu ne ko xam naa ko dégg naa li nga wax waaw naa li nga wax waaw mas naa suñu bu ñu defoon fii hmm. booba muxtafi na rek ñu dajale mbooloo bu teeruñu ak sëtu cheikh sëtu cheikh la àndal keroog keroog la ni kër goo gis am na jinni mais Iran mooy jinne kër sëñ Babacar keroog loolu kër goo gis am na jinni waaye kër sëñ kërsi Si Iran mooy jinne moo ko loolu lépp yooyu yëpp du dara tënk la rek tënk la rek tënk la rek ci fàttali waaye du dara man xam nga du ma jinni <laughs> ah xam nga du ma tuur waaye loolu lépp tënk la affaire la rek ah bu muy def rek noonu wa defee nit ñi mën a xam nit ñi mën a xam li ñuy def baax na parce que boo xamul li ngay def doo dem da ngay xam li ngay def doo ko mën a dem nit kenn du ko xeeb boo xeebee nit ñi rek yàlla xeeb la boo xeebee nit ñi yàlla xeeb la boo kon nit kenn du ko xeeb dañ koy naw ku mën a doon sagare bu ko soleek lu sole yëre yu baax ak bu yëre yu bon yëpp naw ko rek parce que mag ñi dañ daan def kuñ gis defe ne am nga lu ñu amul te yàlla mag ñi dañ daan def kuñ gis defe ne am nga lu ñu amul ca yàlla ñoom ba dañ lay moytu suñ toogee ak yow bu ngeen waxtaan fa ñu ne ci defal ñaan jëkkantu ne la ñaanal hmm. ngeen ne diir muy la ñaanal ñaanal hmm. ñaanal xam naa tax ma wax la ko nga ñaan hmm. mag ñi mosuñu woon nangoo am dara dara dara dara dara dañoo bayali ko rek waaw loolu mooy farata loolu mooy farata ndax boo dee def ko la romb ngeen ne kii du waajo bu yàggee waajo romb la dem maam alaaji Mansour radiyallahu anhu moo ko waxoon maam alaaji Mansour dafa taxaw benn taalibe bi ñu ñu ñu benn nit ñëw fekk leen fa hmm. nuyu leen maa laa mën soo nuyu ko ñaar loxo hmm. waa ji nuyu ko benn loxo xam nga ñun taalibe yi dañuy xeebaate hmm. boo dee bëkk néeg da ngay xeebaate parce que dangay ngay defe ne yow koo gis yaa ko gën fekk du noonu waa jox waa ji benn loxo ba mu dem maam alaaji moom soo ne xam nga kii doon nuyoo mu ne ko déedéet mu ne muy diw mu daw di ko dabe rek maam alaaji moom soo poñi xëcc ko ba mu ñëw rek mu sànni ko ci ginnaaw ni ko booy def ku la romb ngeen ne kii du waaja bu yàggee waaji romb la dem waa waaja dem na waaw ñun loolu mooy dëgg nit du xeebe nit du xeebaate soo nekkee ci kilifa da ngay naw nawal ñëpp xamal ni kilifa ku ko seeti du caaxaan ku ko seeti du nitu caaxaan ndax am na lu mu am am na lu mu mel am na loo xam ne dana mu ngi ko ànd doo ko yëg amoon na benn góor bu daan nekk fii ci kaw taax mi bu ñëwee moom danaan ubbil ma rek eh, mu benn bis mu ne Kaatim man de dama bëggoon a gis sëñ bi seen nii rek mu ne ko dama ne sëñ bi nee na kenn du fi dugg daal koy gëdd noonu góor gi waxu waxu wax ne ko ubbil ma ma xool man damay xool jëmm jërë jëm mu ne ko dama du góor gi du fi dugg nu ah, kon baax na bu ma la fekkul eh, bu ma la fekkaatu du kon mu jar ko mu ne ko boo yàlla tawal xal xaatima ko loolu ne ko boo yàlla tawal xal waaye si déwén fekk ko fa fekk ko fa parce que nit ñi seen sagar ak seen yuy da leen di da ngeen leen di moytu da ngeen leen di moytu nit dafa am lu mu mel te boo ni nii rek jeex na am na lu yàlla denc ci moom loolu xam hmm. soo ko fooyee rek du baax danga koy jàpp fonk ko yemaleel borom bu mu rafet mi borom bu mu ñaaw mi yemaleel borom xaalis bi ak amul xaalis yemaleel ñëpp waaw la maam Alaaji Mansour waxoon maam Abdou ne ko wasawi ne ko yemaleel sa jataay ahlul faqri wal xinaa ña nga leen yemaleel ñi am ak ñi amul yëpp yemal leen sa jataay mu ñu tolloo te muy dëgg parce que mën naa am nga nga jël ki amul di ko doye dal fekk moo yor lépp ci yàlla kookoo yor lépp ci yàlla te xamoo kon nag nañu baax bàyyi xel yooyu yëpp baax na si.